jërëjëf Chérif ma bàyyi la nga dalal gan gi. waaw wax nga rek sànq Alioune Fall mooy secrétaire général adjoint syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale. Mm-hmm. Euh, tey nag euh, li waral jataay bi mooy ñi ngi waajal déjà premier mais gis nañ laata loolu coow li bañ na trop ci fi nga xamante ni kon mooy milieu travail ñii ñuy dàq. ak ñi nga xamante ne kontaanoon ci bërëbu liggéeykaay yi ba tax na kon bëgg nañ sëñ Fall mi nga xamante ne interpellé nañ leen ci parce que démb centrale syndicale bi ñu dajee dañ yéen sax pale dañ ne fa ñu yokk seen doole parce que dafa mel ni yéen inspecteur du travail amu leen doole joo xamante ni mën a wàññi baaraamu njaatige yi ba ñu respecté li nga xamante ni kon moom mooy yoon laataa loolu la xew ca Linguère bëgg nañ ci am sa avis parce que na ñoo xam dañ ne dañ a que code du travail dafa prévoir xeetu jëye yi bu amee jàpp ni xëy na responsabilité am na ci ñu suspendre ko d' abord euh, am na lu ñu war a leeral ba pare. Mhm. Euh, ki ñu dañ ko suspendre xamuñu ba xam euh, c' est fonctionnaire wala c' est un non fonctionnaire wala c' est par le code du travail. donc am na ci koo xamante ni hôpital bee ko recruté woon moom la directeur bi wax ci extrait bi mu wax. Mhm. am na ci koo xamante ni agent ministère de la santé moo fa affecté woon. leen leen daal laa ci mën a leeral sur le plan purement technique dañuy wax ni suspension d' un de travail c' est pas une décision du décision bu ñuy jël. Mhm. suspension conséquence la. soit da ngay def benn euh, loo warul def ñu sanctionné la bu ñu la sanctionné lu ci mel ni mise à pied dafay suspendre contrat bi mais du da ngay jël benn décision rek ni diw suspendre naa ko sans mu am li nga xam ni sanction la bu ko jiitu maanaam suspension njeexital la bu la defee mise à pied huit jours su boobaa dañuy jàpp ni durant ces huit jours la yow liggéeyoo kenn du la ko fay. kon suspension boobu c'est nul alors. bon mënu ma ci sori parce que xaw ma yan condition la ak ak ak ak kooku nan la fa nekkee donc mënu ma ci sori mais li ma mën a wax daal ci code du travail suspension du décision conséquence la. Mhm. léegi nag ñu ñëw ci li nga xamante ni moom la ni waajal coow li bari na trop ci barabu liggéeykaay yi sànq gis nga chiffre yi nga xamante ni syndicats yi génn nañ ko jëm rek kon ci liggéey bi plus de quatre-vingt mille personnes yoo xamante ne impacté ci wàllu Covid bi. est-ce que yéen tamit yéen def ngeen ay statistiques yéen ñi nga xamante ne inspection du travail pour xool impact Covid bi ci milieu travail. tey jii statistiques yi ñuy joxe yëpp ci inspection du travail la jóge mm-hmm. parce que euh, war na def weer wala ñaari weer am na benn jàngat bi ñu jot a def ci données yi nga xam ne recueillir nañ ko. Mm-hmm. ci li jëm ci Covid bi liñ ci sentir ci ay impact bi nga xam ne moo laal bërëbu liggéeyukaay bañ ko dajalee càmbar ko am na ay chiffres yu ñu génne chiffres yooyu yëpp mooy yi communiqué nii. 80 mille kon. c'est-à-dire amaana sax euh, Sénégal lañ nekk parce que am na économie informelle bi nga xam ne mi ngi nekk à côté ñooñu tamit impacté na leen. Mhm. donc chaque fois chiffre yi ñuy joxe mën nga sax njort ni war na ko gën a diis. parce que boo amee seetlu rek. Mhm. mën nga njort ni quand même euh, Covid bi. am na lu mu fi laal lu bari 80 000 mooy li ñu mm-hmm. enregistré au niveau de l' inspection du travail. 80 mm-hmm. 000 sax du ma ni sax 80 000 la parce que ñoom amaana dañuy mën sax dem jël jël dolli ci ay chiffres ANSD ak leneen ak leneen jël ci lu bari. Mm-hmm. mais daal ci gàttal lu li nga mën a jàpp daal mooy Covid bi. Euh, jot naa ne sax ñu ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ay inspecteur nekk ci terrain bi lu ñuy gën di dem muy gën a feeñ jot nañ ni sax la mu njeexital ga mu am ci bërëbu liggéey liggéeyukaay dëgg-dëgg des na feeñ bu ñuy gën a dem dina gën a feeñ. waaw jamono ji mbir mi amee nag déjà Covid bi indi na fi njombe lu rëy mooy ñi ñàkk seen xëy. jamono joo xam ne état bi tam mi ngi def euh, promotion ne day def emplois de jeunes ba ay emploi milliers d' emploi ñu ne dañ koy créé dégg nañ fii ñoo xamante dañ leen dàq surtout yenn sec bu ñu jëlee secteur par secteur. Mm-hmm. tey jii gis nga dèjà ñu nekk fële ca Twyford ca Mbour. Mm-hmm. gis nañ leen ñuy ñaxtu ne ay milliers d' emploi yoo xam ne boo sàggoon ñu dàq leen ba ci ay délégué personnel sax. ñu ne dañ leen di dàq boo jógee foofu gis nga la xew ci autoroute à péage tey syndicats yi ne n ñoom it dañuy def conférence de presse. Euh, situation boobu yéen nu ngeen koy dundee yéen ñi nga xamante ne plainte yi ci yéen lay ñëw. xam nga Sénégal dafa si bërëbu liggéeyukaay yi dafa metti woon laata Covid bi di ñëw Covid bi di ñëw mu gën a jaxasoo euh, boo seetloo ba Covid bi di ñëwee président jël na ay mesures mesures yi nga xam ne pratiquement ci euh, période d'habilitation bi la yemoon. Mm-hmm. mooy interdiction de licenciement même pour motif économique. Mm-hmm. dañ woon jafe-jafe du am ci entreprise ba entreprise bi licencié lu dul. liggéeykat bi def benn njombe bu rëy a rëy rëy rëy mhm. war a mën a tax ñu sanctionné mais loolu dafa jeex ba mu jeexee ñu delluwaat ca la ñu neewoon mooy code du travail bi nga xam ne moom moo fi amoon léegi nag liggéeykat yi fenn lañ mën amee yaakaar mooy bu ñuy liggéey ci conditions yi ñuy ñu am benn code du bi nga xam ni moom mën a sàmm seen ay àq. Mhm. ba pare am benn administration du travail bi nga xam ni moom mooy doon corps de contrôle bi di veiller à ce que code du travail boobu ñu appliqué ko donc problème yooyu noonu tant que wuñ ko lii la ñuy am da ngay gis à chaque fois euh, syndicats yi dañuy génn dañuy kaas dañuy jàmbat te fan lañ koy defee ci presse bi lañ koy defee pourquoi ñu koy defee ci presse bi pour man loolu aussi lu jara laaj la. Mhm. parce que amaana bu ñu sentiree ni la ñuy xaar en terme de réponse mhm. ci seen ay jooy que état bi mënu ko regle dañuy dem fu ñu ko mën a régler c'est da ngay dem ba finalement Sénégal mhm. dangay dem taxaw ci presse nga jéem a jaxase. Euh, état bi ak population bi pour peut-être espérer. Mm-hmm. mu am solution. maanaam mais est-ce que du fayatu administration du travail. c'est-à-dire yéen surtout parce que parce que nee nga euh, dañoo war a am code. Mm-hmm. du travail ak yéen ñi koy saytu dañoo war a am nga wax kon dafa amagul ba léegi wala fan la soxee. boo nee fayt bi. da xaw jël benn raccourci pour mën gën a xóot loolu mm-hmm. cest à tey jii nii boo amee benn inspection du travail bu taxaw mënul def leneen lu dul appliquer code du travail bi fi ne li ñu war a laaj mooy est-ce que code du travail bi fi ne. taxaw naan obsolète sax leneen la. mais mm-hmm. est-ce que am na des garanties yi nga xam ni yu dëgër yu am doole yu war a mën a permettre inspecteur yi mu def liggéeyam. Mm-hmm. comme na ma waree. am na wala amul loolu. jàpp nañ ñu ñun syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail wax nañ ko fu nekk. Mm-hmm. ay at ngi ñu ngi koy jooy nee ñu code du travail bii nii dañ ko war a xoolaat surtout ci wàllum sanction yi. mooy tey jii nii dafa am ñaari xeetu sanction yu am ci code du travail am ay contravention ak ay dili mm-hmm. am am na un tribunal du travail bi nga xam ne bu délit amee moom moo koy saytu. Mm-hmm. bon ci délai bu gudd lay doon am inspection du travail bi nga xam ni day def ci nekk ci terrain di contrôler mm-hmm. day def ay conciliation mais ci biir contrôle boobu noonu am na ay infraction yu muy remarqué yi nga xam ne ay contravention la tey jii nii ci texte bi fi ne nga xam ne dafa obsolète muy décret 62 bi nga xam ne mu indi yi li ñu mën a daan euh, njaati gi entreprise ci contravention weesuwul 18000 te pour nga appliquer ko problème la parce que décret 62 bi c'était pris en application de la loi de 61 97 am nañu code du travail bu bees donc pour waa Sictras dafa leer. Mhm. code du travail bi ñu yor actuellement. Mhm. taxawul taxawaayu garantir droit travailleurs dañ ko war a soppi te loolu noonu il faut ñu ñeme xam ban inspection la ñu soxla parce que des fois dafay yomb nga taxaw ni dem naa inspection du travail euh, sama problème réglé wul wala mm-hmm. inspection ñëw na fi sama problème réglé wul la question qu'il faut poser c'est que inspecteur bi est-ce que am na droit def lu weesu li yoon teg amul droit bi la réponse est non mm-hmm. Mm-hmm. donc su boobaa il faut que ñu jàngat xool ba xam code du travail bi nga xam ne en 1997 ci contexte bu particulier mhm. d'ajustement structurel avec euh, un encouragement vraiment des des investisseurs pour ñu ñëw mhm. est-ce que en 2021 dañoo war a continuer di am code du travail boobu bi nga xam ni donc il dafa leer ni tey jii nii euh, damay profité di ko waxaale ñun sonn nañ ci wax nañ ci jéem nañ ci am na ay jéego yu ñu commencé woon teg pour ñu mën ko defaraat surtout ci wàllum sanction yi parce que du sanction kese il faut moo am ay sanctions mais il faut aussi inspecteurs yi ñu am ay jumtuwaay yu leen di permettre ñu mën a présent sur le terrain jumtuwaay yooyu mooy il faut nga am ay inspecteurs yu bari yu mat. ñaata ngeen. actuellement mën nañu ci biir administration du travail cent quatorze inspecteurs et contrôleurs. ci Sénégal yëpp ah, ci Sénégal yëpp mais ëpp nañu loolu. ëpp nañu loolu bëri na ay inspecteur ak ay yi nga xam ni ñi ngi ci organisation internationale internationale yi ñi ñu ngi ci euh, ONG yi ñu ngi ci privé bi ah, parce que lenn la état dafay former ay inspecteur ak ay contrôleur ENA leen di former ci ci anam yu baax leen di former bu doon ay euh, fonctionnaires yi nga xam ne dañuy compétent ba pare mm-hmm. polyvalent mm-hmm. mooy leen di public bi di soxla noonu leen privé bi di soxlaa ba pare ñu nekk ay corps de contrôle di jàkkaarloog ay employeurs yi nga xam ne dañoo am doole tamit à un certain moment demoon na ba finalement ñi ñi toogatuñu parce que dañ naan sacerdoce la mais da dem ba finalement da tu es rattrapé par les réalités de la kenn ki nga xam ni li mu lay proposé amaana benn organisme international bi nga xam ni c'est cinq fois supérieur à ce que l'État te donne. kon payoor payoor bi dafa xaw ñi sant yàlla mais da jàpp nañ ñi ci liggéey bi ñu war a def. ca nañ koy defee ak ca la mu laaj ak na mu lay exposé ci ay tentation mhm. tey jii jaadu woon na inspecteur du travail yi seen taxawaay gën a dëgër ci wàllu motivation financière ba mhm. pare nag mooy pouvoir yi ñëw mhm. parce que tey jii nii dafa am épanouissement ci li ngay liggéeyee gis nga bu fekkee da xëy ngay liggéey say action bu fekkee jàppoon yi mi ngi am na lu muy transformé doo am motivation. bu dee su ma xëyee suba ba ngoon lii may def ça me permet pas de changer situation bi fi nekk après. day doy waar mais Covid bi ba léegi bu ci ñëwee ak impact bi am na ñoo xam surtout patronat bi doon ko defoon prétexte pour dàq. Mhm. ñoo xamante ni ay permanent la ñu ñu ne remplacé am na fi question yoo xam sax ay syndicalistes ñu ngi ko yónnee nee nañ dàqi permanent bàyyi fa ay journaliers mhm. loolu code du travail nangu na xam nga code du travail di déjà Covid ba mu ñëwee dañoo tere licenciement pour motif économique ñu dem ba ci biir interdiction bi jeex ñu mujj am lu ñuy wax ñi ñi di commencé def seen ay procédure licenciement motif économique mais code du travail dafa ni boo defee licenciement motif économique ba pare. 6 mhm. mois yi ci topp mënoo recruter. Euh, keneen CDD. Mhm. mën nañ jàpp ni journalier CDD la mais yemuñu foofu. Mhm. dañu ni mënoo recruter CDD xanaa lu dul ci dure bi ba ñu weesu ñetti weer. parce que mën nga am problème bu jàmp mm. warul weesu ñetti weer bu fekkee contrat journalier CDD la mm. loolu benn journée lay durer donc des fois yu ci bëri aussi mm. du ñàkk ñu ñu ñu xaw ci sànni xeer inspection du travail te ni code du travail bi des fois moom moo koy moom mooy moom mooy procédure licenciement euh, nga xam te ne ko sukkandiku ci motif économique naka la tëddee c'est-à-dire ndax entreprise bi am na droit tëb ki ñu jël la na la euh, économique bàyyi fi ki xam te ni am procédure bi naka la ko tëralee tey bu entreprise bi jàkkaantoo ki nga xam te ni moo naka la mën a def ba nga xam te ni buy licencier euh, mu war ko daal charpente bi xam nga licenciement motif économique euh, benn procédure la bi nga xam ni li ci njëkk mooy waxtaan mooy boo amee ay jafe-jafe entreprise bi dafa war a waxtaan ak délégué yi xool yan mesure la ñu war a jël soit ñu wàññi waxtu yu ñuy liggéey ñu wàññi salaire yi en tout cas ñu xool yan mesure la ñu war mën a jël pour éviter licenciement bi waxtaan boobu ñu pare dañ koy tënk ci procès verbal jébbal ko inspecteur inspecteur bu ñëwee moom woo leen jéem a waxtaan ak ñoom jéem leen jubale mais loolu inspecteur bi amu ci obligation de résultat obligation de moyen kese la ci am mhm. bu waxtaanee waxtaan mën na jug am ay suggestions yu muy defal employeur mais employeur bi mën na topp inspecteur bi ko mën na ko bañ a topp mais bu demee ba desul lu dul licencié su boobaa dafa am ay critères yi nga xam ne dafa ko war a suivre bi ci njëkk mooy aptitude professionnelle parce que ñi ngi wax ancienneté mais li njëkk ci critères yi mooy aptitude professionnelle léegi nag bu fekkee ñaari nit dañoo dem ba témboo ci aptitude professionnelle bi su boobaa ci la ancienneté bi du jouer ci la charge de famille du jouer mais may fàttali ni licenciement motif économique dafa doon doy mm-hmm. ni yow accompagnement nga ci am parce que en 94 dañoo changé le droit du licenciement tey jii nii fenn rek la inspecteur bi amee voix au chapitre mooy bu fekkee dafa concerner un délégué du personnel mm-hmm. mais sinon inspecteur bi mënul du moom mooy autoriser licenciement délégués ils sont protégés ci licenciement pour motif économique avant nga leen di licencier pour cette raison il va falloir nga demande autorisation de l' inspecteur. léegi euh, motif économique licenciement par yéen nan ngeen ko entendre parce que des fois aussi ay abus na ci am nit mën na ñëw rek invoquer loolu est ce que yéen di ngeen am preuve pour saytu ko vérifier ne kii li wax dëgg. c'est que ñun kenn est-ce que am na wala amul. yéen yéen rôle médiateur ngeen joué. mooy en réalité. Mm. Mm. amoo pour apprécier ba xam motif économique bi am na wala amul. Mm. la vérité c'est ça. te loolu depuis 94. Mm-hmm. la changé. mooy avant dafa am autorisation préalable. mooy employeur bu demee ci inspecteur bi donc il faut mu teg fa lu leer luy mën a. Mm-hmm. tax mu dégg ni motif économique am na mais amaana sax léegi mën nañu ko gën a defaraat mais daal li ci mënti am mooy actuellement. fa ñuy xaaree ci inspecteur bi mënu fa wuyoo parce que code du travail bi ñu am permettre donc daal problème bi mooy code du problème bi mooy dañoo war a yokk mooy inspecteurs yi yokk ay inspecteurs mhm. fexe ba inspecteurs yi ñuy recruter parce que étape bi ñuy recruter ah, mais nga ñuy toog. ñuy toog nga fidéliser leen ba xam ñu ngi ci privé bi nekk ay DRH ak bari ñun mën na sax dégg ni des privé bi li mu lay mën a jox état bi mu la ko jox mais. am na góorlu bi nga xam ni bu amoon tey jii nii amaana rek ñi ñi dañ préféré toog mais tant que yow yaa ngi recruter. Mhm. ñeneen ji jël mais doo mos am na ay jamono yi nga xam ni yenn inspection yi ay contrôleur ñoom ñoo ko dirigé woon matuñu woon sax mais instant yi nii 114 inspecteurs et contrôleurs de tout ñëpp nekk ci inspection yi dama ci boole ñu nekk ci direction général yeeg ministère yeeg yooyu noonu. Mhm. ñoo bëgg càmbar condition de travail yi mais dafay jafe. bu ñu ñuy yuuxoo nag dal ci kaw inspection du travail des fois ñàkk xam la dañ koy comprendre mais ñun suñu rôle mooy aussi ñu taxaw leeral nit ñi mbir mi ñu teg lan lañ ci mën ak lan lañ ci mën. Mm-hmm. dégg affaire loolu li xaw Toy Ford bëgg na la ci interpeller parce que foofu aussi bon travail bu leen déggee nee na conditions yi ñoom métti na leen tegi jàmm parce que chinois yi ko jiite des fois ñoom la xew seen yoo xam foofu moom dëkk dictature la. Mm-hmm. amul sax liggéeykat bi déjà amul sax sañ-sañ et cetera loolu nees ko mën a nangoo ci réew mu mel ni Sénégal. xam nga des fois euh, li may wax mooy ay investisseurs bu ñu ñëwee lenn mën a am ñaare mu am problème choc culturel mooy façon yi ñuy liggéey ak fii façon yi ñuy liggéey bokkul avant ñu ñëw ci droit bi. la mooy ni ngay jàppee liggéeykat yow ak ñoom ni ñuy jàppee liggéeykat mën na wute mais Sénégal moo war a am dëgërlaay gu mel ni tey jii nii kenn bu ñëwee investir sa dëkk nga ne ko ah am na li nga xam ne kenn mënu ko négocier état mën na la baal fiscalité mais état mënul fekk liggéeykat bi taxaw mu ne ko dama bëgg nga renoncer say àq ak yelleef. Mhm. pour kii mën a investir mënul nekk. su boobaa nag ñoom li ñu fi fekk. des fois on parvient. fexe bañ ñu respecter lenn li mais seen ay habitude daf leen di rattrapé su boobaa nag il faut que inspection bi mu am matukaay bu toll ni su boobaa mu mën a appliquer réglementation bi te ku ko violé su boobaa mu mën a am ay daan yu mu teg sa kaw. des fois problème muy toy fort muy keneen ak keneen ak keneen. même dans le secteur de la presse. des fois da dem ba finalement dañ lay interpeller ci leen li nga xam ne yow da ngay xam ne lii nii sa ay doole mateew ko. mais taxawaay boobu noonu. ay moyen moom moo koy def. te su boobaa il faut aussi investisseurs yi ñëw di investir mën a comprendre ni. fii Sénégal la dafa am ay lois et règlements yi nga xam ne boo ñëwee dafa def affaire da koo respecté benn la. mais tey ci man phase la bu dee euh, moo xam kii euh, moom entreprise ak kii di dama euh, lañu employé fan lañu war a toll ba jeg inspection du travail dem juge devant le juge du travail. lenn moom cest à su ma leeralee ni inspection du travail même avant ñu ñëw ci ñoom dañoo am benn mission de contrôle bi ñuy def mm-hmm. tey jii ni amoo sax obligation jaar inspection du travail. Mm-hmm. mooy mën nga dem nga saisir directement tribunal du travail. Mm-hmm. comme mën nga saisir inspection du travail. moom mu jéem a tenter bu fekkee affaire bi jàllul. mu door a transmettre dossier bi tribunal mais li gën a jafe mooy ci biir conciliation bi inspecteur bi mën na gis ni kat kii dafa violer loi bi mu leer nañ. ci anam yi nga xam ni mënu ci dara day mujj bàyyi ko mu dem tribunal mën na jël deux ans mën na jël trois ans ñëpp xam nañ ni aussi le temps de la justice. dafa conseil des fois gars yi ñu waxtaan seen bureau la dem tribunal ñaar yooyu bu ci gën. non cest à inspecteur bi lenn la war a mën a def jéem a xool nu mu jubalee partie bu dee conciliation la jéem a xool nu mu fekkee mënul nekk mu transmettre dossier maintenant liggéeykat yi li leen di xaw euh, merloo tuuti mooy temps bi muy jël dafay dem ba ah, employeur yi bu lourdeur amee lenteur am mm-hmm. day profiter employeur bi nga xam ne am na moyen am ay conseil am ay avocat mm-hmm. liggéeykat bi soxla xaalis amul loolu moom ñu saafara ko inspection du travail moo ko gënal maintenant nag loolu il faut aussi inspection yi am matuwaay ak doole bu leen waral ni bu problème bi ñëwee ñu mën ko saafara. peut-être une dernière question sur l'emploi parce que gis nañ xamante ni kon yéen secteur bi naka lañ mën def ba ñoŋal justement liggéey est-ce que koppar kese la 450 milliards yooyu. ñun dañoo jàpp ni lu toll ni ministère du travail inspection administration du travail la ñu def yépp euh, place bi ñu ci waroon jox ñun joxuñu ko. am na li nga xam dañ dañ koy séen rek. Mm-hmm. mais lenn lañ ci wax mooy emploi dafa am ñaar il faut nga créer ay emploi il faut nga maintenir ay emploi parce que bu fekkee lu dugg li ko ëpp génn dootul am njariñ dafa jot am nañ ci expérience ASP yi. Hmm. conditions yi ñuy liggéey condition yu métti. Hmm. et pourtant da leen di lim ci ay emploi yu ñu créé. Hmm. mais boo seetlu ba ci biir est-ce que kooku emploi boobu noonu ñu diw am na liggéey njaboot tegu ci kawam ñeen tegu ci kawam di ko xaar feneen fi nga xam ne mënu fa répondre loolu problème la est-ce que am na sécurité sociale bu war loolu beneen problème la. est-ce que tey jii nii les principes du travail décent respecté nañ ko. parce que tamit question bi dañ ko war foofu bu dee dañ laa jox liggéey bi nga xam ni d'ici deux ans trois ans liggéey boobu noonu day jeex wala yow di si deux ans trois ans amul benn cadrage bi nga xam dina permettre liggéey boobu mën a wéy su boobaa dañuy dañuy dañ dañuy nax suñu bopp moo tax ñu ne état bi c'est bien de créer des emplois mais c'est bien de renforcer l'administration du travail pour que les emplois créés aussi ñu mën ko sàmm loolu aussi dafa am solo mm-hmm. te loolu moom mooy euh, dëppoog les principes du travail décent d'accord d'accord ñu di ko jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon euh, suñu gan di euh, Alioune Fall di secretaire général adjoint du syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale egsi nañ ci beneen pàcc woo xamante ni dañ ko waxtaanee ci info du matin di Allo Présidence